ki xëy toog ci baaw jaaxlem di wane ak teeku tële ci liy xew ci ëttam bi te mënul ci moom dara te ëttu yëglekaay yëpp xëy ko di saamaka jaay mu amee xëtu njëkku journal yi ñu fekk fa président Macky Sall ki doon soppiw doxin ba far dugg ci kàmm te mënatu caa génn mu far ca taq rip mu amee xëtu njëkku l'observateur yële xëtu njëkku journal moom journal bi nañu ca dëgg-dëgg nag bukki bi mbaw PDS rek moo matt waa APR ne ñoom moom ñoo yam ay féem na ñoo bokk nu ñuy tàkkee waaye te itam ñoo bokk koy ca dëgg-dëgg jaaxle dëgg rek la def nit ñi ko wër te amaluñ ko benn njariñ xanaa di ko dugal rek ci guuta ba tax ñëpp di ko mii fa foore lii day moo ëlëm sàll ngaar yi waaye journal bi yëmu ca nee na moom kay ndax APR moom xanaa dafa torru rek ci fin de saison journal bi nañu bu fekkee nii la koy jeexee de moom déception dëgg rek moo ko dal wal fajri mel na ku koy feelu ko moo ko fa fekk keneen ki wéet ci li mu nekk te ñëpp xëy ko wan ko ginnaaw mu amee xët wu njëkk vox populi yële xët wu njëkk journal bi ñu fekk Moustapha El Pestero Moustapha Cissé Lo journal bi nañu ginnaaw waa APR kay waa Benno Bokk Yaakaar te itam dàqee nañ ko ci groupe parlementaire bi journal bi nañu moo tax Cissé Lo kay xawma kuy waxati lu ñu mel moom waaye du ca bokk ki jug di ko fompal ay ronkooñam naan ko ko am ku dudd lakk moo nekk ci wu njëkk wal fajiri ak Moustapha Jaxate journal bi nañu moom kay saytaane dëgg rek la def ndax Cissé Lo mii moom li mu nekk fu ko ci xasul waroo ko cee far keneen ki ko ci farul tam xëy di joxe leçon ka jàngale nu ñu war a def moo nekk ci xët wu njëkku laas ñu fekk fa doom madame Aminata Touré Mimi Touré nee na ca dëgg-dëgg man estati Faidherbe bi man njariñ bum ñu indil rek man xaw ko man moom kenn dañoo war a soppi doxin tuddee ko ndaxte yàlla sax moo gën ñu bàyyi ko fi keneen ki koy cokkaas te naan ko boo xamoon li gën di nga sa wareef moo nekk ci xëtu njëkku Les Échos ñu fekk fa ku ñu naan Baara Ndiaye Baara Ndiaye nee na ca dëgg-dëgg président Macky Sall mu ngi ci guddi ku bësatagul ndax ñi ko wër moom ñëpp intérêt a def xaaj ba xaajaat ba dara léegi gisaguma benn pelante bu mu yëkkati jëmale ko ca yoon ñeneen ñiy def lu yoon tere di topp seen xol bay fàtte seen diine ñoo nekk ci xët wu njëkku l'Observateur yëla xët wu njëkku journal bi na góor ñoo xam ne jigéen gu ñu xas ba tàbbal leen seen xol takk juróom-ñeenti jabar sax du tax ñu fàtte la du samay kàddu yëla juróom-ñeenteel bu l'Observateur ñu fekk fa seen nusuwaay jii di nettali ay jaar-jaaram waa ji nee na man de takk naa soxna ba am ak moom ñaari weer waaye ba léegi rek damay seetlu ne sama xel moom du masa dañ rek ci ki ma njëkk a bëgganteel waaye waa ji yamu ca nee li gën a doy waar dëgg rek mooy saa ma nekkee sama soxna soosu rek ni damay fàttali rek santiment yi nga xam ne moom laa jotoon am ci sama coro boobu eh, fii toj ba ëllëg ak jàmm